mbokkente du ñu leen chat bu baax a baax di leen wax ngeen dal jàmm su des sport 221 kuy gan ci page bi ñu ñaan la nga abonné nga activé cloche bi bu leen di fàtte di like vraiment c'est très important xibaar yi dañ koy tàmbale kii nga xam mooy Pape Kouly Diop kon moom kat balaa aj The ay crampe moom mooy ko jënd la nga xam ne mooy tam de footballeur professionnel à 37 ans moom mi nga xam ne sax jot naa jonte ci équipe nationale bi voilà 2017 la fi bawoo nag jàpp leen moom enseigné na la nga xam ne mooy fukk ak benn saison mooy que 16 saison moo amal 500 match kon loolee ci ay page Instagram la ko fësalee mu jot a jonte nag huit club voilà lu ci mën a Levante Espagnol de Barcelone ay bar club bu ci mujj moom mooy Ibiza kon jàpp cent 320 match la amal. ci division espagnole bi kon moom mooy le de champ bi nga xam ne wala doomu africain bi nga xam ne moo ëpp kat lu mu amal match foofee ci Liga. dix-septième journée bu Ligue 2 bi dinañ amal seeni jowante sa samedi dinañ ko tàmbali jàpp leen bu baax Demba Diop contre Seneps AS daan Kër Madior ñooy laale ñu ngi fësal aussi RS Yoff ak Oslo FA et que AS Douane Thiès jowante yooyu dinañ ko wéyalee ce ci Ligue 1 bi kon jamono fàtte moo dara US Wakam tëngëj leader boobee di dalal Guédiawaye FC AS Pikine Dakar Sacré-Cœur jiwante yooyu dinañ ko tàmbali yëpp à partir de 16h30 GMT. ñu ngi fësal ci kayitu xibaar yi kat suñ gaynde yi amaguñ ñaar fukki at jàppale U20 yi lay soxal jeux africain ñoom kat ñooy mujjee daan seen ñetteelu match pays benn mooy Nigéria ñetti bal ci ñaar ki nga xam ne mooy Idrissa Gueye moom moo ama doublé waaye ka nga xam ne mooy Yaya Jammeh moom dafa am carton rouge. kon la nga xam ne mooy seen demi final dinañ ko amal ak pays organisateur bi nga xam ne mooy gana ñu jàpp ko ce 19 mars prochain. l'équipe nationale beach soccer bi dañuy mujj dàq ka nga xam ne mooy Mamadou Diallo ginnaaw ba ñu lajjee ci mondial di mondial bi foofee ca foofee ca émirat arab jàpp leen bu baax kon fédération bi ñu ngi wër kan moo ko war a wuutu bu fekkee nag foofee bi Arabie te jàpp leen choc gi nga xam ne comme ni mu ko digal entre Lyon. Edouard Mendy contre Sadio Mané waaye club bu Sadio Mané boobee di Al Nassr mooy daan nag 1 euh, but à 0 grâce à but ki ngeen mooy Cristiano Ronaldo suppléante à la 68e minute kon jàppale ginnaaw gi biom boobee nag bi mooy 23e biom de la saison ak 50e avec avec Al Nassr depuis ba fa tàmbalee jiwante Sadio comme ni mu ko defoon ci Ligue des champions vraiment il a fait un très grand match kon Al ñëw nañ à 9 bi nga xam ne mooy Al Auto Addo moom delluwaat na ci banc bu Ghana ñi lay dëppale les Black Stars moom mi nga xam ne moo leen yóbbuwoon ci mondial bi weesu foofee ca Qatar ñu bu ko woon nga dàq jàpp leen bu baax kon moom dafay quitté nag voilà foofee ca Borussia Dortmund benn moo fa ne woon de directeur de la formation kon voilà joxe war nañ ko lenge ca Ghana. waaw def naa bu Europa conférence bi amoon nañ tirage bi ci noonee Aston Villa Lille Olympiakos Fenerbahçe ñooy laale Fiorentina Victoria Plazen Club Brugge ak PAOK jogante yu Alep dinañ ko amal 11 avril retour bi 18 avril. Arsenal waral laale club bi mooy Bayern de Thomas Müller comme ni mu ko tàmmee di def nag voilà mi ngi jox dig daje ka nga xam ne kat mooy xaritam almaa biir mooy Kai Havertz jàppale bu baax mu koy xaar bu baax a baax mu ne nag ñaari club yooyu club yu mag la ba tax na kat danañ fa xaar joonte bu mucc ayib et que jàppale nag ci statistique li nga wane mooy que Bayern voilà nag. voilà mën naa ak Arsenal bokkuñu yoon voilà duñ jëlante mbagg ndax buñ boolee seen bu jéelu joonte voilà ci score quinze fois la ko Bayern daan Xabi Alonso tirage boobee mooy que ci Europa Park bañ ko amalee mu ne li leer ba leer mooy que Liverpool kat moom mooy favori ci li nga xam ne mooy Ligue Europa bi. UEFA mën na indi ay coppite ci ordre tirage bi amal nañ ko voilà jàpp leen ce ndax Real de Madrid moo war a dalal foofe ca Bernabéu wala boog moo war a dalal club bi nga xam ne mooy. Euh, moom mooy moom mooy Man City ek deux matchs wala à Madrid à 24 heures loolee wala nak mën indi jafe-jafe ndax jàpp leen seen ay règle dañoo tëral ne kat ñaari ñaari club yi ñoo bokk même dëkk voilà mënuñu recevoir même heure wala bokk même bes comme ni nga ko gisoon ci li nga xam ne kat moom mooy Europa League bi la cas de Benfica jàpp leen bu baax kat kon buñ mayul kat mën indi ay coppite kat ñu xool ban bés dañ koy jàpp ek ci confrontation benn ma wala doo ci Barça jàpp leen Kylian Mbappé nag voilà dina am opportunité nag voilà nag mu wane boppam face au face au Catalan de même que mu ci Real de Madrid et eh, que jàpp leen Barça nag vraiment une équipe décimée avec ses blessés voilà espérons que ñoom aussi dinañ am les armes pour défier les Parisiens. ñu desandi ci joŋante Ligue des champions boobee kii nga xam ne mooy Pep Guardiola nag mu ne ñoom amuñu choix nag di dox ak Real mu ne comme voilà nag euh, c'est à peu près une tradition jouer trois années de suite contre les de la compétition di Real de Madrid Ancelotti mu ne nag vraiment inquiété wu amul benn njàqare ginnaaw gi tirage au sort boobee am na kat yaakaar bu rëy rëy voilà am na confiance ne kat. mën nañ ci génne ak ndam waaye Real de Madrid seen jour yi kat ils sont sous la menace d'être expulsion d'être expulsé comme nañ ko fësalee bu ñu suqandikoo ci kayitu xibaar ñoom ñëpp dañoo amee carton jaune muy ko Jude Bellingham Vinicius Junior Eduardo Camavinga Aurélien Tchouameni voilà bés bu ñu amee carton jaune seen jonte face au Citizen ci àll bi dinañ dinañ manqué Messi retour bi. Vinicius Junior li ñuy dal ci kaw bëri na lool bu doon supporter mi ngi jàppante ak yenn ci ay jouram yenn di sax dafay dem ba la nga xam ne mooy insulte raciste jàppale ba clubam boobee di Real de Madrid nag nee nañ dinañ ko yóbbee fa ma xana doonee benn nag bu ko defee ka ñu mën a protéger seen brésilien boobee ndax vraiment nag liñ koy offensé ci terrain bi bëri na lool et que mën na mën a dox ci mantalam bu baax a baax Brahim Diaz mu ne contrat ak Real de pour moom nee na amul benn négociation. Real mooy bërëb bi nga xam ne voilà fa la bëgg a nekk di doxal ek Barça kat ngi fësal benn onze bi nga xam ne voilà mucc na ayib. 90 minutes mu fësal loole ci kaay dafa teg euh, Onana défense bi Coulibaly Garcia Grimaldo Balde Gavi Thiago Simon ca kaw yemal Messi ak ka nga xam ne. mooy Kubo ñoo ñëpp Barça kat lañ jaar mooy que ci Masia bi à 17 ans ka nga xam ne mooy Pau Cubarsí woolu nañ ko une première nag ci sélection espagnole bi Ron Araujo ñu laaj ko ban bataaxal ngay jëmale la nga xam ne mooy fans yu Barça ndax ñoom kat wala bokk ñu ngi fësal ci xibaar uruguayen boobee Barça noppi nañ ko jaay club bu teg. quatre-vingt lu jege quatre-vingt millions d'euros mooy que lu jege cent millions d'euros jàpp leen bu baax mu ne li leer ba leer mooy que moom kontaan na lool foofee ca Barça et que nag dina ko neex lool. mu desandi fa di doxal ñu ngi ci yoonu qualifié li nga xam mooy Ligue des ki kii nga xam ne mooy Postecoglou mu ne dinañ xool ba na séparé xool ba xam bu fekkee Antoine voilà nag li nga xam mooy mercato estival bi nag dinañ xool yan poste lañ war a renforcer kenn m mi ngi fësal ne voilà Özlung Aaron Wan-Bissaka am nay chance nag ñëwaat ca la nga xam ne mooy seen groupe ginnaaw gi ba ñu amee gaañu gaañu waaye jàppale leen kii nga xam ne kat mooy Mason Mount mu ne amaan na tàggatu ci semaine bi yëpp kon kookee xel mën naa dal ci moom. bu fekkee France ñoom kat voilà nee na seen joor dañu may benn pause kat jour ñuy dog waaye kat Angleterre ñoo am nañ esprit de dépassement et de solidarité club bi nga xam ne kat mooy Man City dañoo organiser woon voilà benn ndogu seen stade boobee kat ñu invité fa. ay jullit yu bëri kat et que ñu ngi fësal kat euh, Sadio Mané maanaam coach bees comme ni nga ko fësalee ci kayitu xibaar yi jàpp leen ki nga xam mooy Mourinho ginnaaw bi nga dàqee ca AS Roma nag club benn mooy Al ñu ngi na si ay pexe xool ba xam. nan la ñuy dalalee portugais boobee bi nga xam ne club saoudien yi bëri kat ñu ngi ci ginnaaw waaye rawatina club bu Sadio Mané boobee jàppale moom sax moom dinañ ko dinañ ko defar benn documentaire sur Netflix loolee balaa xaarleen leen ko bu baax a baax ci jaar-jaaram en tant que coach moom mi nga moom la ñuy dépplé spécial war club bu mu dem bàyyi fa trace. xibaar boobee góol arabia moo ko fësal jàpp leen bu baax moom amaloon na sax voyage foofee ci arabie saoudite ci box bi doxoon na ci ngàndu ak Joshua kon Al Nassr bi nga xam ne ginnaaw bi nga xam ne mooy Ligue des champions asiatique ca quart de finale am nañ déception dëgg seen entraîneur bi mooy Luis Castro voilà nag moom lu desee ca posam bu saison bi jeexee ndax voilà dañ ko fooy jëlee kon kenn mooy Sadio Mané voilà dina am Mourinho comme sélectionneur comme ñenn ñi jàpp nañ vala Mauritanie kat mi ngi bëgg doon Sénégal be ndax kat vala yenn signes internationaux ñi ngi jël ndogal di fa nam amuñu possibilité jouer pour leur pays vala jàpp leen bu baax ñoom dañuy utali foofee ci Mauritanie kon ku ci mëni Khadim Diaw Pape Ibn Babacar Niass Abou Bakari Kouyaté de même que Pam Ndiaga Yade moo ci mujj waaye li ci leer ba leer mooy que ñoom kat ñu ngi leen souhaiter voilà bonne carrière avec les Mourabitoun ndax quoi qu'on dise kat voilà bu fekkee ñoom amuñu possibilité jouer naam ñenn ñi ñu ko jàngatee mooy que mënoon nañu patienter waaye voilà dafa fekk ne kat Sénégal wala y a pas mal de joueurs talentueux voilà laf cat comme ni nga lay brésiliens en Afrique ndax am na joueurs yi nga xam ne voilà nag mën nañ dem fu nekk doxal. rawatina Mauritanie bi nga xam ne voilà mi ngi sippee suñu ay international et que ki ngeen mooy Aliou Cissé nag tap sur le table nag mi ngi dal ci kaw arbitre bi wala boog arbitrage africain bi voilà mu yëkk ci kaddu en conférence presse voilà mu ñëw ci nu mu gën a yaatoo voilà je vous laisse écouter kaddu yi nga xam ne jibal na ko jëmale ko ci yuuxu yi nga xam ne def nañ ko ko de même que ak yeneen yi nga xam ne balaa ñëw na ci yenn mu gën a yaatu en conférence de presse waaye si ci ci ci la nga xam ne mooy en wolof kon gars yi ñu yemale ki xibaar ci nañ jaajëfal ba beneen yoon sur Sport 221. waaw mais loolu moom euh, mbiru mbirum football la jëluma ko comme loo xam ne lu lu lu métti la méttiwul sama sama xol vraiment parce que euh, euh, football bi xam naa ko ça fait depuis trente cinq ans maa ngi ci ci football bi. Euh, c'est important tamit loolu ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy répété xam naa tamit lan mooy attitude ak mentalité supporter supporter tey bu neexee mi ngi équipe bi bu naxaree tamit dina wone frustration am donc contexte bi mooy lan mooy que 2022 bi ñu gagné coupe bi ñëpp gis nañ ma Sénégal yëpp ma accueillir woon waaw mooy nekk ci kaw bus bi ak coupe bi indi ko mais nag 2024 euh, bi yàlla yalla defee wu ko noonu waaw te ñu ñu ñu si sant tamit yalla bu baax non la xeyna non la non la gëné mais normal parce que jour bobu moom mën wax ni que euh, euh, euh, Sénégalais yépp Sénégalais fépp fu mu nekk rek ñëpp xam nañ ni que am nañu am nañu am nañu frustration bobu mais dama bëgg rek suñu supporters yi xam ni que ñu ñu mëna mëna mën frustré ñun ñoo leen gën a frustré parce que suñu yaakaar moo doon vraiment dem ci li coupe boobu indi leen ba indil leen ko encore euh, Sénégal loolu moo doon suñu suñu objectif Crépin nag xale la waaw dafa impulsif donc euh, xëy na mën na am yoo xam ne bu koy wax tamit euh, frustration moo tax mu wax ko mais fenul waxul waxul waxul dul dëgg tamit parce que tamit bu ñu xoolee match boobu naka la arbitre bi mën a bañ a siffler penalty boo xam ne ñëpp gis nañ ni que penalty la donc man aw defuma defuma sortie boobu parce que peut-être que maa ko ëpp vécu mais mënuñ ko blâmer ci ci lolu mais ci arbitrage africain bi y a ko fi wax fi yàgg fi discuter il y fi sensibiliser ci arbitrage africain bi xeyna pour sénégalais yu bëri ci match bobu nañu gis ni que arbitrage africain bi amna lo loo doxul mais ñun lolu nañuy vivre pratiquement tout le temps pression arbitre de touche pression arbitre central pression euh, délégué délégué délégué match bi